asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu bu baax leen jaare bu wér tey jii nag ñu ngi fii ci univers bio. muy cabinet Serigne Lamine Bara Fall. dimbali surtout sama mbokk góor ñi. wàllu doole bi wàllu ngóora wàllu kàttan ak wàllu sëy pour lu yokk guddaay bi yaatuwaay bi yam ak dëgëraay bi. muy ñetti pomade yi ñoo koy def en même temps dañ leen di mayaale ay garab pour faiblesse sexuelle may la pour éjaculation précoce. ci kàttan yàlla. kon képp ku bëgg jokkoo ñun mën nga ñu woo ci 77. 169 45 45.